léegi ñun fi mu ne justice bi mu ngi dox doxalin bi nga xam ne dara mënuñu cee bett parce que justice bi justice du Sénégal dafa jéng su fekkee dafa jéng na à partir de ce moment déterminé lépp loo xam ne que jëmul ci booru ña nga xam ne ñoo ko ŋànk kenn mënu koo am te mbirum Khalifa Ababacar Sall xam nañ ne léegi firnde yi toujours day ñëw nekk loi téyewu ko fi justice bu ko fi téye yi dafa fekk ne que justice dafa jàpp ne que moom amul indépendance et que tey jii amuñu sañ-sañ maanaam atte atte boo xam ne que dafa jaar yoon léegi nag lii nga xam ne que atte nañ ko yoon may nañu ñu dem cour suprême gis ngeen ne que lu ne def na ko lu ne ñu ngi koy def pour que kayit yi ba ñu jóge seen loxo exception d'inconstitutionnalité yi ñu déposé yépp daf ci wax daf ci tontu té yoon joxoko martaba joxoko sañ-sañu mu gëstu ko daf ko wara jël jébbal ko manam kurel bi nga xamné ñom ñoo yor sañ-sañ bi ak martaba bi kon légui ma tay la ma tay bi dafa né fang kon bok ñun nga xamné ay avocat lañu liñu mëna def rek mom modi di jaar yoon même bu féké né ka xam nañ ne que ñoom def

pour wax li ñuy wax jalgati wax yi wëlbati ko loolu dafa di maanaam loo xam ne yabeen la te xam naa ne te yaakaar naa ne mbéju kanam borom moo koy fajal borom boppam tey ji su fekkee ne que maanaam ñi nga xam ne ñoo war a atte ji ci at yi di ñëw Sénégal bokk ci man duma bett ndax ñoom it ñoom ñëpp ñu ngi déglu ñoom ñëpp ñu ngi xool te yaakaar naa ne saaga yi ñoom dinañ ko saafaral seen